ci néeg war a tëdd ba kaaw def caleçon. waaw war maa sama borom. ay kiisu kaaw ak ay mën <laughs> <laughs> ndey lu ma kaaw defoon ci Fatou Kiné dinaa leen ko def <laughs> ndey faa mu yër bu kaaw. xool yiw man ni ko loolu doo ko def. billaay laay kontaan naa. ndey mag lañ la jox nag non xam naa ne kontaan nga. kontaan mag lañ la jox de. pour nga koy sirete rek bul dem directement. ay waay ay waay adeet lu ne xam gis nga. Mm-hmm. xol lu bu àttanul dara. Mm. boo ko brisqué rek musiba mën naa am. mais nga sirete xam na nga. <laughs> da ngaa tànk xam naa ne namm nga koy sonn nga <laughs> bu ñu la may kaw rek dama seet nag da nga bëri kersa. Ah, léegi am na yu bari yoo xam ne mënatuma ko sama kàddu mënatul jug jug xam nga rek ndax waaw sëy moom dafa garaaw mm. jaamu yàlla la ah, te am na yenn yoo xam ne sax doo ko mënati surtout loolu surtout loolu ah, bu bu kaf jeexee nag caaxaan jeex mm-hmm. vraiment mm-hmm. man li ma la waxoon rek laa waxaat mm-hmm. sa diggante kaaw man la gënoon ñor sax ka kaaw parce que xam naa fi mu toll ci yow dama lay dolliwaat rek la ma la waxoon yow rek yaa ko mën a dimbali. incha xamul dara. nga bëgg ko ma bëgg ko mu neex mu naqari. xamul àdduna xamul dara yow. boo demee ba sëy kaaw. da nga ko bëgg rek te yàlla tax. parce ni yàlla ya bu boolee ñaari nit. mbëggeel hmm. mooy hmm. alal du taar feeñ nekk sa diggante taaw parce que xam naa te gis naa te ñoo dëkk mm-hmm. ma lay ñaanal rek yàlla sàmm leen